Dakar notre plateforme d'information. mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV ak Sénégal Instant euh, comme ni ma koy waxee à chaque fois rek ñu ngi fi ci ba tey ci nga xamante ni moom mooy ci tudd euh, Ndeye Ndiaye bi ñu fekk fi artiste bi nga xamante ni mën naa ni kenn dooru ko présenté fii ci Sénégal di Marlo di def rôle bu am solo ci famille sénégalaise moom laa dal bëgg waxtaan ak moom balaa boobu dama koy jox mu nuyoog mbokk yi après ñu ko ci waxtaan bi grand Mar jaar naa la. ku euh, baax ñu ngi delloo ziar. waaw ah, ok ñu ngi delloo ziar bu baax alhamdulilah. Mhm. Euh, lan moo sa teewaay tey ci bisu Ndeye Ndiaye bi ak si relation ak moom. <laughs> waaw je pense que ni sama teewaay fii moom jarul sax laaj quoi dëgg yàlla Ndeye Ndiaye dafa di ku baax doon artiste dëkk Thiès man ma dëkk Thiès ñu am ay ay relation yu bien. depuis bi ma tàmbalee ba tey hmm, wax dëgg yàlla ba suñu joon yàllay tey dara mosul dara mosul ñaaw kon yoon la su amee tuut tànk ma bàyyi li ma doon def yëpp ñëw ci assister ko wax dëgg yàlla loolu daal moo doonoon su ma su may tànk tey. lan moo la gën a marqué ci moom. lu ma gën a. marqué ci moom. bon Ndeye dëgg yàlla bu may wax ni lu ma gën a marqué ci ku baax la daal boo bëggee dégg-dégg ku baax la parce que yàgg nañu bokk ay tournage xëy na bokkuñu bokkuñu bokkuñu c'est-à-dire jegentewuñu de trop moo tax am na yu bëri yoo xamante ni du ko mën a xam à cent ci moom parce que wax dëgg yàlla ak lu mën a xew rek waxal dëgg te te yàlla tax mais xam naa ne daal li ñuy tase tournage bëri na lool te wax dëgg yàlla chaque fois ay conseils yu baax lay lay lay la may jox parce que naa ne ku jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax na ngay toogee di ma wax ni ni ngay def ni ngay def di yegg di yegg film bi nga xamante ni moom mooy famille sénégalaise moom rek la bëgg ah. chaque fois daf ma koy wax moom rek la bëgg moom rek lay seetaan ma allah di ma ci jox ay conseils yu baax et puis voilà conseils yooyu may jox euh, jàpp naa ni ñu ngi koy ñu ngi koy jëfee comme ni mu waree. d'accord voilà c'est ça quoi. Euh, gis ne exception la ci euh, Ndeye Ndiaye parce que dañuy faral di naan artistes yu bari ah, donc également euh, du ñu sëy wala ba bu ñu sëyee tas tey moom ba tey mu ngi sëy ci biir këram demul dikk lool tamit aussi naka loolu dafa am lu mu wane ah loolu dafa am lu mu wane comme dañ ne artistes yi du ñu sëykat ngeen gis Ndeye Ndiaye depuis. bi mu commencé sëy ba tey alhamdulilah ah mosuñu ko dégg ci lenn lu ñàkk fayda mosuñu ko dégg ci coow ah mosuñu ko dégg ci loo xamante ni maanaam ñu koy xeebee la jëkkëram doon ku baax aussi muy alsaan ga xëy na tamit jëkkëram ji ni mu ko téye comprendre ko looloo tax ba nii nii nii Euh, wax dëgg yàlla te ñaanuñu yàlla sax di di di am euh, maanaam loo xamante ni ci lu négatif lay doon par rapport ak ñoom ñaar ko ça montre que ni voilà artistes yi ay sëykat lañu ça montre que aussi tamit bon wax dëgg yàlla ñu am ful la ñu am fayda ci seen bopp lañu voilà loolu la quoi c'est ça. d'accord ñu gis a ji artistes yi. Wally Seck ba passé dañ ko jàpp amul permis tey euh, ki xamante ni waaw Sidi Diop donc maa ngi jégal baax ak ki nga xamante ni moom mooy Diaw Ketchup ñu jàpp ko ci loolu donc également loolu naka lay def ci yéen artiste jàpp ci ndax amuñu permis waaw loolu nu may def ah dëgg ah, yàlla fii ba dawal te amoo permis moom amul artiste amul amul c'est-à-dire nit ñi dañoo war a nite mm-hmm.

war en tant que porteur mais nga jàpp ni dama siiw artiste laa rek lu ma neex laay def laa ak gouvernement bi gars yi caaxaanuñu ah. d' accord ah oui. d' nga fay jouer rôle ba am solo cinq soxna yi moom nak lañ ko mën a leeralal. cinq soxna yi ah xanaa ñu xool rek ba fu muy mujjee xam nga des fois nit bëgg day am. waaw des fois nit ki bëgg-bëggam da koy dugal ci loo xamante ni après daf koy rëcc. Mm-hmm. nit ki aussi bëgg-bëggam daf koy dugal ci loo xamante ni dañ naan dafa ñàkk xel. dugal ko aussi ci loo xamante ni dañ naan kii nii la mel alors que melul noonu. xam nga xam nga man bon amatuma sax temps di toog naan maarloo nii la mel c'est-à-dire du ko def xalaatuma ko Sénégal yi ni ñu ma jàppee noonu laa mel rek nañ jàpp ni noonu laa mel. Sega Jabar yi ñu ciy wax ne nañ normalement est rôle bi nga xamante ne nañ koo li nga xamante ne moom mooy diine aussi. waaw waaw waaw xam nga wax naa ko sama biir wax nee naa la. nit ki bëgg-bëggam daf koy yóbbee mu def loo xamante ni waru ko def mais est-ce que ñiy wax nan am na wala amul xam nañ fu muy mujj dañu war a comprendre ni mhm. euh, c'est-à-dire théâtre dafay yeete yeete bi muy yeete mooy da ngay da ngay jóg pour def lu bon ñu remettre la à l'ordre li ñu remettre la à ñu gisee ni Marlo mu ngi def lu bon mhm. sëriñam daf koy woo ne ko lii li nga def baaxul kon tey jii ñu ngi jàngalee mhm. juróomi jabar waroo koo am da ngay fase benn dese ñeenti jabar te bëgg naa balaa tel heure wala balaa tel jour nga dese ñeenti jabar kon ñu ngi jàngale. Mm-hmm. bu ñu jàpp ni Mario cinq jabar yi ñi ciy wax naan amul amul waruñu ko def dañuy yàq diine bi. ñun mm-hmm. pour la ñuy yàq diine man may taalibe Cheikh. gëm yàlla. Mm-hmm. bokk ci famille bu baax. man du ma lu ñàkk fayda. dëgg la barki Seydina Mohamed. ñi may jugé nag dañ ma xamul. ku ma jege rek yàlla xam na ni di nga xam ni kii nitu kese la mais boo ma jegewul lu la neex waxal et puis loolu du leen ko bañal nañ wax lu leen neex dafa ñàkk fayda eh, gis sax ñoo xamante ne maar rek laa bañ na ma yàlla baal maar rek laa bañ amul problème maar loo nga bañ mais Pape Moussa Fall bañoo ko je pense voilà loolu la dañuy dañuy dañuy jàngale dañuy yeete xam man boo ma fekkee nii ma toog di waxtaan du ma waxtaan sax waxu théâtre waxu football laay wax parce moom laa xam mm-hmm. bu dëgg léegi léegi nii bi nga may fekk di ma jël interview loo ma fekk may waxtaan ak sama gars yi waxtaanu football du ma bokkoon kuy topp di saaga maarloo wala di ko xas wala di ko jànni kooku problème am la l'essentiel maa ngi liggéey nit ñaa ngi may xam maa ngi ciy am sama wërsëg alhamdulilah maa ngi ciy mën a faj sama soxla c'est loolu mooy l'essentiel mais ñi nga xamante ne dañuy toog naan voilà seen film bi c'est-à-dire c'est que xëy am di commentaire hmm. voilà loolu naa waaye maa la gën